sëriñ Basiiru Saar sëriñ Basiiru Saar mi ngi feeñ jamono ci atum 1923 ci dëkk bii di Thiès biñ feeñee jamono moom sëriñ Basiiru Saar ci bëccëgu ñaari fan ci mois de janvier ci atum 1923 ci dëkk boobu di Thiès di doomu seex sëriñ Saar ak ku ñuy wax soxna bu Diop waaye moom sëriñ Basiiru Saar amul kenn nag ku mu bokkal kii di soxna bu Diop kon benn doom la ci soxna bu Diop mi ak kii di seex sëriñ Saar seex sëriñ Saar doomu seex Ibrahima Saar Njaañ la seex Ibrahima Saar Njaañ itam bokk bokk nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim doomam ji nag di sëriñ Basiiru Saar ginnaaw bu mu feeñee jamono ci atum 1923 ci dëkk boobu nag di Cees waajuram wa Seex sëriñ Saar doomu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag la ko tudde di Cheikh Mahamadul Basiir Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim sëriñ Basiiru Saar nag bokk nag ci turandooy sëriñ Basiiru Mbàkke yi moom sëriñ Basiiru Saar nag bi matee dal alxuraanul karim waajuram wa Seex sëriñ Saar Cheikh Mahamadul Mustapha Mbàkke ibnu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag la ko jébbaloon ci tundoo di Mamadul Moustapha Mbàkke nag moo ko dalal alxuraanul karim boole koog doomam ja sëriñ Aliou Mbàkke ñu jàngandoo lii di alxuraanul karim ginnaaw Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag waajuroon wa Cheikh Sëriñ Saar yóbbu na ko itam nag ci dëkk bii nag di lugaloo ci jàngalekatu alxuraan ba nekkoon nag di sëriñ Mbay ginnaaw bu mu nekkee ci lugaloo moom moom sëriñ Basiiru Saar mi nekkandoo na fa ñaari doomi maam Cheikh Mbay ya di kii di El Hadji sëriñ Saam ak kii di El Hadji Jiili Mbay ginnaaw lugaloo nag waajuroon wa Cheikh Sëriñ Saar yóbbu na ko itam nag ci dëkk bii nag di càlleen ci ku ñuy wax maam Kàbbu Caw Thiaw maam Kàbbu Thiaw mii nag doomu sëriñ Mor Galaay Thiaw la bu càlleen def na fa itam ab diir nag moom doomu Cheikh Sëriñ Saar bii di Sëriñ Basiiru Saar ginnaaw foofu nag lañ ko jébbal turandoom wa Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ibnu Sëriñ Tubaa Seexul Xadiim kii di Sëriñ Basiiru Saar nag di doomu Cheikh Sëriñ Saar ci ñii nag la jaar ci wàllum njàng ginnaaw bu mu ñibbisee ci loxoy waajuróom nag yàggu ca waajuróom nag turandoom Cheikh dul Basiir Mbàkke ibnu ku baax ki Sëriñ Tubaa Seexul Xadiim nag la ko jébbaloon ba tax na mook turandoom Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke def nañ nag diir bu yàgga yàgg nekkoon na sax chauffeurub cheikh mamadul bachir mbàkke ibnu ku bax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim mu wéy nag nekk ak turandoom cheikh mamadul bachir ba nim génnee àdduna ci atum 1966 ginnaaw cheikh mamadul bachir nag ci atum 1966 bi mu génnee àdduna moom sëriñ basiru saar mi nag daa delsiwaat ci loxoy waajuram seex sëriñ saar nekk nag di tarbiya waajuram ba tax na itam nag waajuram defloo na ko nag lu takkoo takkoo takku nag ci wàllu liggéey ndax yoonu murit gépp nag ñoo amoon yaakaar nag ci doomu seex sëriñ saar bi di sëtub cheikh ibrahima saar njaañ na loolu loola itam teel na koo wane ginnaaw bu mu feeñee jamono bi mu nekkee ci loxoy waajuram Seex Sëriñ Saar Seex Sëriñ Saar nag bindoon na ko ab lettre nag di ko wax ne nag dafa bëgg nag mu wutal ko billet boo xam ne ni dana ko mën a jële Cees nag indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba wala billet bu ko jëlee muux muux indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ngir mu waajal nag lii di màggal gi ndaw la Seex Sëriñ Saar yabaloon nag ngir mu ñëw seet si Sëriñ Basiiru Saar jaamu ku baax ki Sëriñ Touba Seexul Xadiim ngir di ko wax ne sa waajur wa nag lii la sàkku dafa tombe woon nag yeneen ndaw nag jóge Saar jaamu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ngir del si waat nag ci waajuram wow nag di di ko jox si nag ay addiya ginnaaw nag bu addiya ya ñëwee seex sëriñ Saar nag bindoon na lettre doomam jooju nag seex Basiiru di ko xamal ne lii nga def de jortoon naa ne sax sa xel xalaatu ko muy nga toog ba mu yàgg nga jox ma ay addiya waaye na la leer na bég naa ci yow sant naa la gërëm naa la ndax yaakaar jama amoon ci yaw kat ba na gën a yàkkeekuwul te day wéy nag nag di yokku maa ngi wéy nag di la dénk nag njaboot gi nga xam ne ni mooy sama njabootuk bopp gi ndax am gu ma am yaakaar ci yow mii waxtu tisbaar nag laa jot nag lii di xaalis bi nga ma yónnee woon daal lay bind nag lii di lettre waaye maa ngi sàkku nag ci yow nga nuyul ma ginnaaw boo jotee lettre bi sa waajur wa soxna Seynabou Diop ak taalibe yi nekk foofu ak mbooleem waa kër gi ñépp di leen wax ne nag le nag ci weer wi nag danaa ñëw màggal si ñu teewlu lettre bi Cheikh Serigne Sarr bindoon doomam ja Cheikh Bassirou sar ginnaaw nag bu mu doon sàkku nag ci doomam jooju nag mu wutal ko ay place nag ci diggante muux muux Touba wala cees Touba ngir mu mën a màggal si ndaw lam yónni yónni woon na ci Cheikh Bassirou Sarr ngir mu wax ko loolu te Cheikh Bassirou Sarr nag yónniwaat ay ndaw nag ngir ñu jox si waajuram wow addiya lettre bi waajuram bindoon na ngir nag di sant nag Cheikh Bassirou Sarr ci jëf jooju mu def nag ngir di ko ca sant ak gërëm ñu teewlu ko fa ilal ibnu Bassirou Sarr salaamun salimun la salaama fawqahu ama bahdu waaytu rasulaka wa barawataka wa hadiyataka wa asturuka xaayata sukri maa a bi anni radatu a jawaaban fi saalikal yawmi wa fil barawati rodai wa xawaaiji wa salaam sababas gërëm la sax moo waral sama yaakaar dolli ko yow ba tax na sax maa ngi la cay dénk njaboot gi gépp góor ak jigéen ngir am naa bànneex ci ndaw li ngir xam wax ne say xalaat àgg na foofee yàlla na sunu boroom defal ngay mag tey mag mu barkeel yàlla na sunu yaakaar àgg ci yow amin dana àgg sax nekk góor jóob ba mu fi bàyyi ko ak tey war naa mat vingt et dama ko waxan sax ne ko na la wax yow Basiiru Saar su weeru teroo nanga nga ñëw Cees wutal si ma permi réquisition place aller le tour wala permi mux mux Tuuba waaye léegi maa ngi bëgg dikk Cees ñaari fan ci weer wi waxtu tusbaar laa jot sa leetar ma dal lay tontu fasaasa ba Sarr jot naa xaalis ba na nga ko bëggee maa ngi lay sant rek nuyul ma soxna Seynabou Diop ak sa kër ak taalibe yi yëpp nañ fonk màggal ga bu baax man danaa xëy altine ja la siis si weer ginnaaw lettre bu am solo boobu te waajuróom bindoon ko Cheikh Bassirou saar di ko ci sant ak gërëm waajuróom Cheikh Serigne saar mu ngi génn àdduna ci atum 1975 laataa muy génn àdduna nag bindoon na lettre doom jooju nag di Serigne Bassirou saar jaamu ko baax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim di ko dénk nag di ko wax ne itam nag njaboot gépp itam nag yow rek laa am yaakaar nag sama ginnaaw ngir nga sàmmal ma leen te maa ngi koy sàkku nag ci lettre bi waaye nag su boobaa itam na nga sax nag ci njàngaleem ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sax itam ci liggéey bi mu santaane ngir nga mën a yor itam lii di njaboot gi ñu teewlu lettre um ndénkaan bi seex sëriñ saar defoon ci doomam ji di seex basiiru saar laataa muy génn àdduna ci 1975 ngir di ko dénk njaboot gi ginnaawam ñu teewlu lettre bi min xaadimi xayni rahmati al ansaari aleykum al ibnu almardiyu salaamun salimun la salaama fawqahu awlu xawli tasakkar xawla sayxina almakkiyu adqantu nafsi wa jamia ahli fi jaybi afdalil wara sil fadli wa hakaza al amru suma baxda salika asalullaha an takuna kabiran mubarakan wa baxda salika ulamika bi anni qad qabiltu hadiyyatakuma kama tuhibu wa tarda fa jasaka allahu anna xayran wa kufita dayra wa aydan wa amma xaqiqatu muraadi an takuna xalifan li jaddika wa tuhiitu barakatahu wa toola umrihi wala aqdiru an aktuba ma fi qalbi is wa salika ma qad saba بلغ عندي أولا حل فاعلم بأني رجوتك بهدي جدا في هيالي والهيال كلهم عيالك إف وأما في يدي بيدك عليك بتقوى الله العظيم وبخدمة قادم رسول صلى الله عليه وسلم ما وجب وصيتي هذا ما علمت نفسي بأن سنة أو أي سهر أو أي يوم جلي والآن كنت كبيرا أوزيك بالحيال طرا فليقف ما لم يقل yaari sama yaakaar sama gannaaw ci njaboot gi gépp wal aan aqaafu dunia jiddan alkaatibu xubaydu rabbihi saahibu hayru rahmati xidmatan lettre boobu nag la ko waajuram Cheikh Serigne Sarr bindoon ci laataa muy génn àdduna ci atum 1975 nag di ko dénk njaboot gi ngir di ko wax ne sama yaakaar gépp nag mi ngi ci yow ngir nga sàmmal ma sama njaboot gi ginnaaw ba waajuram génne àdduna nag mu toog toogaayu waajuram nekk xalifa bu waajuram ba ñun génne àdduna ci atum 2009 moom Serigne Bassirou Sarr muy fanweeri at ak ñeent nag yu mu toog toogaayu waajuram sàmm njaboot gi ndax ndénkaan lool kat la ko waajuram wi bàyyee loon mu nekk nag ko am relation ak njabootu ku baax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim moom Serigne Basiiru Saar moom sëriñ Basiiru Saar moomu way na ay way nag kii di sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di Xaadimu Rasuul way yooyu mu def nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag mi ngi ko jëmee nag ci di tàgg nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci may yi nga xam ne nii may na ko mboole murid yi ñu teewlu way yi sëriñ Basiiru Saar jaamu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim def nag ci jàmbaari lislaam jooju di Xaadimu Rasuul alhamdulilahi ma sant Bamba moom kiy defar ku bon di baaxal Bamba mbégu murid yi mboole seen Seex Bamba moo fiy di def te na yàlla fab tofal ko Cheikh Bamba may liggéey ba mu gërëm ko Cheikh Bamba laa fi gis mayam ya doy ma ku gis leneen ne wax waxoolu nax ma man sant naa te sant yàlla mbër ma mi nu xamal Cheikh Bamba Mbàkke neex ma yàllaa ne woon Cheikh Bamba Fall loo soxla ndax yaa liggéey samay fay ma fay laa moo tax ku Bamba fay na xoomal kóolu ku mu fayul nga rëccu daal di jéelu ku bëgg a xam na gaaw yi siiti mbër ma Cheikh Bamba ndax ma yor mbiram ma moo nu teree defi samaan jiwaalo moo nu teree defar na waa Saalum defar waa penku defar na seen gannaaw defar lu fenku ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini jihaari bamba laaj ko moom yéefar yi doon nañu seet na bamba mel ci mbër yi laajal tubaab yi dellu laaj waa sénégal dootuñu laal seex bamba mii ni mar rijal ahlu badrin dañoo dikkoon ngir bëgg a far biiruk français mboole seen bamba defar seex bamba xam lu yàlla tax mu def ko ne du français du keneen mu neex ko billahi mbàkke yaa gore yaa wóolu soo doon keneen ku wute ngir ñu wóolu a minal français te boole nag seex bamba gën ji naa si bamba musal sëriñ woon ci yoon yi dellu musal sëriñ si tey ci daan nga kenn du fi yow ba woon ba tey yaay ngaa kaa daleel nga ndar ba dem France ngir laahi dellu si Tuubaa wóor na leen billaahi daane nga ndar daane ndakaaroog sow daane ña daa xajee ka seeti sow Tuubaa di Makka wóor na gaa yi Bamba ku dem ba makk gis fa Seex Bamba xanaa gisoo mbindam fa ñuy siyaare ku dem fa Makka laal ko Bamba waare nan dellu ñaan nga may nu ay maqaama fegal nu ay mbugal bi sub xiyaama bu fa dajeeg luñ fa ragal aku mbugal fa dajeeg ak ku nuy tenar yow la nu yaakaar tey ci fii ak fa nu jëm buñ fa soree nan fa bu ñu nu laaj bu ñu gis bu ñu nu seet Seex Bamba yaanu doy ëllëg yaa jara seet ku la fa xam du fa ragal ko fa dajeel deefu ko laaj du gis mbugal yow lan fa xam yow lan fa xam yow lan fa gis a xam yaa a gis ku la fa gis du la gën ku mën a gis gis la fa mooy la gën ci nun suñuy njaboot suñuy soppeek suñuy xamee suñ fa dajee yow la nu xam yaa nuy xamee fàggul ndam fàggul nu ay teraanga yamal xiyaam yiraan nu ci yaraanga taxawlul bas dafar ko ñaan mu may la ku Bamba may nga ñeete yàlla may la basiru mooy tur moo bas moom jaara moo taala amina yaa rabbi wa yooyu nag mu def ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim moom sëriñ basiiru saar bi sëriñ tubaa seexul xadim génnee àdduna ci atum 1927 sëriñ basiiru saar itam amoon na ci bagaasi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim muy am mbubb muñ tudde ab jàllaabi ku dem ci njaboot gi daa gis sa jàllaabi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim boo xam ne ni sëriñ basiiru saar jaamu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim moo ko amee ci bagaasi sëriñ bu mag bi digganteem ak cheikh mamadul mustafa Moustapha Mbacke ibnu ku baax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim ko amoon kóllëre la ak Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ndax bi mu matee dal lii di alxuraanul karim waajuram maam Cheikh Serigne Sarr Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke la ko jébbaloon ci tundoo di ba tax na Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moo ko dalal lii di alxuraanul karim moom Serigne Bassirou Sarr Cheikh Mamadou Moustapha itam faboon na doomam jébbal ko di soxna Maymunatu Mbacke bintu Cheikh ma Moustapha Mbacke ginnaaw Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ba tax na itam mook Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam jaar bi maam cheikh sëriñ saar ku cheikh mamadul faadal mbàkke fonkoon la ba tax na itam jaar nañ fu bare bare bare bare mook cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu xaadim rasul dafa am bis taalibépp cheikh sëriñ saar nekkoon waajuru sëriñ basiiru saar génn àdduna di ku ñuy wax mbàkke ture mbàkke ture moom ginnaaw bu mu génnee àdduna te sëriñ basiiru saar yégal ko waajuram wa cheikh sëriñ saar ci dëkk boobu mu nekkoon di jaxaaw cheikh sëriñ saar dafa yónniwaat sëriñ basiiru saar di ko wax ne su demee mu wax cheikh mamadul faadal mbàkke di ko wax ne mbàkke ture mii de sama taalibe la te ku ma gërëm yéeneem la te moom rek laa ci yaakaar ginnaaw bu sëriñ Basiiru Sarr ñëwee nag ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ba wax ko wax jooju ko waajuram wax di Cheikh Sëriñ Sarr Cheikh Mamadou Fadal Mbacke yónni woon di ko xamal ne na nga ko gunge nag ba ci armeer ya te soo demee nga wax suñ boroom ne ko nag Mbacke Touré mii bu mu ko laaj dara ginnaaw bu Cheikh Basiiru Sarr fa séenee jëfee ndigalul Cheikh Mamadou Fadal boobu Cheikh Mamadou Fadal itam woowaatoon na ko di ko wax ne bàyyil sax ma rafaatale la ko ba sa bépp taalibe bu génn àdduna a doxalee ak moom nii kon mook cheikh mamadul faadal mbàkke jaar nañ fu baree baree baree baree bari ndax jëf jooju ko cheikh mamadul faadal mbàkke rafaatale nag du lu tuuti ginnaaw cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul basir mbàkke ibnu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim ginnaaw bu mu noppee am njàng cheikh mamadul basir nag lañ ko jébbaloon te waajuram wa maam cheikh sëriñ saar itam cheikh mamadul basir itam la ko tuddee nekkoon na itam sëfóorub sëriñ basiru mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xadiim ba tax na itam nekkoon na itam nag ci loxoy cheikh mamadul basir mbàkke ba ni cheikh mamadul basir mbàkke génnee àdduna moom sëriñ Basiiru Saar njabootu Cheikh Mamadul Basiir itam ñu ci bare bari tudd na leen doom ñu mën caa ràññee sëriñ Abdul Akim Mbàkke moom Cheikh Mamadul Basiir sëriñ Basiiru Saar itam tudde na ko doom ndax sëriñ Abdul Akim Saar mi ngi fi te Cheikh Abdul Akim moom ma Mamadul Basiir la ko tuddee ba tey nekkin googu mu nekkoon ci Cheikh Mamadul Basiir moom sëriñ Basiiru Saar jaamu sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim waxoon naa leen na nekkoon na chauffeurub Cheikh Mamadul Basiir ba tax na itam amoon na permis international ci atum 1945 lii di diplôme mécanique itam amoon na ko loola itam tax na nag moom sëriñ Basiiru Saar jaamu ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim nekkoon itam ku xarañ ci wàllu oto loola itam feeñ na ci ak njabootam jamono ji ñoom itam nag ñu xarañ nañ ci wàllu oto ndax seen barkeb waajur wa moo tuuru ci seen kaw sëriñ Tubaa Seex Abdou Lahad Mbàkke lu bare bare bare itam ci liggéeyub Seex Mamadul Basiir Saar mi sëriñ Tubaa Seex Abdou Lahad Mbàkke la jamonoonteel ba tax na mook sëriñ Tubaa Seex Abdou Lahad Mbàkke jaar nañ fu bare bare bare bari kii di sëriñ Tubaa Seex Abdou Mbàkke itam Mansour Sarr tim lu baree bari ñu mën cee ràññee ay nu raxmati ginnaaw nag bu ko maamam ja di Cheikh a Sarr Njaañ gasalee ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di teen bi sëriñ Basiiru Sarr itim nag moo ko def nag lii di ab forage di forage yu ay nu raxmati ci atum 1982 di ndigal lu ko sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbacke jébbaloon sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad itim moo ko sanc loo itim ab dëkk di Tuubaa Xaddama Tuubaa Xaddama nag mi ci diggante Kaffrine ak digganteem ak sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke quartier bu mag bi nag di Touba Lansar te njabootu sëriñ Bassirou Sarr féete fa sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke itam moo ko jébbal ci atu 1987 ginnaaw liggéey loo yu am solo yooyu ko sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke liggéey loo moom sëriñ Bassirou Sarr jaamu ko baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim tax na itam lu takkoo takku ci wàllu lettre itam kii di sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke itam bind na ko jëmm jooju ñu mën caa ràññee lu tollu benn fukki lettre ndax man Abdourahmane gis naa lettre ya mi ngi ci benn doll bu ñu tënk te loolu loolu sax lenn la rek ci lettre yi nag yu njaboot yi dajale ba tax na itam ci biir lettre yooyu sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbacké ma ngi cay sant itam kii di sëriñ Basiiru Saar ba egg na ci sax ba di ko gërëm ci wax ñu yéemee yéemee yéemee doomu xaadim rasuul boobu defal ko sutub Cheikh Ibrahima Saar Njaañ boobu ci biir juróom benn fukki lettre yooyu ak yu topp nag dañ leen ci indi nag lenn nag ci ay lettre yu doomu xaadim rasuul bi bind sëriñ Basiiru Saar jaamu ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim lettre bi ñu leen di indil nag kii di sëriñ Basiiru Saar jaamu ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo fa bon ay addiya akub lettre jébbal ko sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbacke boole kook délégation bu yóbbu addiya ku ñuy wax sëriñ Adama Kend ak sëriñ Mouhamed Ndiaye nag ñoo jiite woon nag li di délégation sëriñ Bassirou Sarr boobu sëriñ Adama Kend nag moo yoroon addiya sëriñ Mouhamed Ndiaye nag moo yoroon nag lii di lettre ba ginnaaw buñ ko yitee ku baax ki sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbacke sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbacke na lettre na kii di sëriñ Bassirou Sarr jaamu ko xamal ne addiya jot naa ca te gis naa itam nag lii di lettre nag di la gërëm ci at yi nga joxe ñu teewlu leetar bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yow sëriñ Basiru Sarr maa ngi lay nuyu lu bari lool di la xamal ne sëriñ Adama Kend ak sëriñ Mouhamad Ndiaye ak ñi ànd ak ñoom sëriñ Adama Kend jox na ma limba sëriñ Mouhamad Ndiaye jox na ma bataaxal ba jàng naa ko walakin aqbal wala taqaf innaka min allaaminiina laa taqaf wala tahzan innaa munajjuuka wa ahlaka wassalaamu aleykum wa rahmatullahi awalan wa axiran bi xat yeddi Abdoul Ahad al Mbackiyu fi Touba ginnaaw lettre boobu itam kii di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbackiyu bindaatoon na baneen lettre kii di sëriñ Basiiru Saar jaamu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim ci atum ci biir lettre boobu ginnaaw bu ko sëriñ Mohamed Ndiaye moom sëriñ Basiiru Saar yittee kii di sëriñ Tuubaa Seex Abdou Mbàkke sëriñ Tuubaa Seex Abdou Mbàkke bindaatoon na lettre na kii di sëriñ Basiiru Saar di ko xamal ne sa addiyeeya di juróom fukki junni ak lettre ba kii di Mohamed Ndiaye indil na ma ko waaye maa ngi lay sant bu baax a a ci gàttal daal dénk naa la ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim àdduna ak alaxira wasalaam ñu teewlu lettre bi sëriñ tubaa seex abdul ahad mbàkke bindoon sëriñ basiiru saar ci atum 1980 ci addiye yu ko sëriñ basiiru saar jébbaloon sëriñ basiiru saar jasaaka salaamaaleykum wa rahmatullahi gannaaw nuyoo bi ak cant gi maa ngi lay xamal ne Mouhamad Ndiaye ñëw na fi jox na ma bataaxel ba ak juróom fukki junniya jërëjëf naa la la lu sa xel daloon na fu gën a na dolli ko dénk naa la borom tubaa saahiran wa wa salama ginnaaw lettre boobu itam ba tey kii di sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké bindaatoon na lettre sëriñ Bassirou Sarr ci atum ginnaaw bu sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké nuyoo ca lettre ba ba noppi mi ngi wax nag yéen waa njabootu sëriñ Bassirou Sarr jasaaka moo xam góor ak jigéen maa ngi leen di nuyu di leen sant te di leen gërëm lu bari lool seen taxawaay nag ak seen pëstéef ci wàllu taalibe gii ñu bokk nag yéen taalibey sëriñ Bassirou Sarr sa nag maa ngi leen di xamal ne sëriñ Bassirou Sarr indi na fi ay addiya mi jërë ngeen jëfati yàlla ngeen ko fi yàgg indi yàgg ñu fee fekk ci saa su ne ci weer wu ne ci at mu ne ngeen koy gën a man yàlla leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla aar yàlla na yàlla nangu seenub liggéey ci barkeb xaadim rasuul ñu teewlu lettre bi sëriñ Tuubaa si Abdou Lahad Mbàkke bindoon kii di sëriñ Basiiru Saar ci addiya yu mu ko joxoon mu tolloon ci ñetti millions ak fanweeri junni ci atum 1987 di ko sant di ko gërëm an qis hiyaali min addalaali wa bil alaali qallis Mouhamadul Basiru Sarr jasaaka rijaalan wa nisaan maa ngi leen di nuyu lu bari lool di leen sant lu bari lool di leen gërëm lu bari lool ci seen passeef ak seen taxawaay yu rafet ci wàlluk taaliba gi di leen xamal ne Cheikh Mouhamadul Basiru Sarr andi na fi ñetti million ak fanweeri junni trois millions cent cinquante mille jërë ngeen jëfati yàlla ngeen ko fi yàgg a xandi te yàggunu fee fekk te saa su ne ak bis bu ne ak weer wu ne ak xaat mu ne ñeen di ko fi gën a man yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla taxawu yàlla na yàlla barkeelal seeni liggéey sallamakumullahu wa xannamakum bi xurmati cheikh alxadim alayhi ridwanullahi albaaxi alxadim asalaamaaleykum kullikum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh abdoul ahad al mbakki ba tey sëriñ touba cheikh abdoul ahad mbakki bindaatoon na baneen lettre sëriñ basiiru saar ginnaaw bu mu ko nuyoo ca lettre ba moom sëriñ touba cheikh abdoul ahad mbakki mi ngi xamal sëriñ basiiru saar di ko wax ne yow sëriñ basiiru saar jaamu ko baax ki sëriñ touba cheikhul xadim la nga ma njaay jot naa ci ngir koor gi muy fanweeri bërigëy suukar ak ñetti bërigëy tàndarma jërëjëfati ñu teewlu addiyey suukar ak tàndarma ju sëriñ Basiiru Saar jébbaloon sëriñ Tubaa Seex Abdou Lahad Mbàkke te sëriñ Tubaa Seex Abdou Mbàkke bindaatoon ko lettre doon ko xamal ne ko ne jot naa ca asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yow sëriñ Basiiru Saar jaamu sëriñ Tubaa nuyu naa la sant naa la gërëm naa la maa ngi lay xamal ne Mouhamad Njaay jox na ma la nga ko yónni woon ci man ngir koor gi muy fanweeri bërigëy suukar fi dunya oxraaka wa duma ala siddiqi wal ixlaasi mujtahidan fi shirri wal kay tum mooma saayaka cheikhul abdoulahat al mbaki wasalaam ba tey lettre bii sëriñ tubaa cheikh abdoulahat mbàkke moo ko bindaatoon sëriñ basiiru saar ci atum 1986 ci ay addiye yu ko sëriñ basiiru saar yónnee woon jaarale ko ci sëriñ sang saar ginnaaw bu sëriñ tubaa cheikh abdoulahat mbàkke jotee addiye bindaatoon na lettre di sëriñ basiiru saar di ko na ma nag lii di addiye ya muy yu teg ñeenti junni ak nag lii di ay yére jërëjëfati nga ko yàgg a man digal naa la nan nga dalal sa xel ndax looy tiit ak looy xalaat du egsi laqees na la nag ci ginnaaw koo xam ne nii mane na kanam mane na ginnaaw di xaadim rasuul jërëjëfati sëriñ basiiru saar ñu teewlu lettre bu sëriñ tubaa seex abdul ahad mbàkke bindaatoon sëriñ basiiru saar ci addiye yum ko jébbaloon ci atum 1986 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yow sëriñ basiiru saar maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la ñaanal yàgg ko aju ci yow muy taalibe di doom di mbokk yàlla may leen jàmm ak salaam xamal ne sang ñëw na xandi na juróom fukki junni ak ñeenti junni ak yére ya jërëjëfati yàlla nga ko fi yàgg xandi taxaat mu dikkati nga di ko fi gën a man barakat seyxin alxadim alayhi ridwanullahi bàyyi xadim digal naa la nga wax na ma am nga ca ndigal dana baax insha allahu seyxul ba tey sëriñ basiru saar jaamu ko baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ci digganteem ak sëriñ tubaa seex abdulahad mbàkke ci 1980 quatre-vingt-neuf ci mujj xilaaf ak sëriñ tubaa cheikh abdoulahat mbàkke sëriñ tubaa cheikh abdoulahat mbàkke moo muy tim bindaatoon na nag kii di sëriñ basiiru saar ci bëccëgug le 7 mai ci atum 1989 lettre boobu nag weere ki fan rek lañ ci teg kii di sëriñ tubaa cheikh abdoulahat mbàkke wuy ci suñu boroom lettre boobu sëriñ tubaa cheikh abdoulahat mbàkke bindoon sëriñ basiiru saar ma ngi koy xamal ni ginnaaw bu mu ko nuyoo ba noppi mi ngi koy wax ne maa ngi sant te di la gërëm ci wàllu posté ci sëriñ tubaa seexul xadim mi ñu bokk maa ngi lay xamal ne itam gis naa mohammed njaay addiya yooyu nga ko jox muy fanweeri bërigo yu suukar ak tàndarma ñetti bërigo yu teg ñaar fukki kilo ak 3 millions ci wàllu xaalis maa ngi lay ñaanal ci sëriñ Tuubaa mi nga yaakaar lépp looy yaakaar nga raw loola te lépp looy ragal itam nga bañ koo séen maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm maa ngi lay ñaanal fu ma toll yàlla nañu suñ borom boole dimbali ñu teewlu lettre bi sëriñ Tuubaa Seex Abdou Lahad Mbàkke mujjee bind ba Basiiru Saar ci nekkinam ci atum 1989 salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Basiru Saar maa ngi lay nuyu lu bari lool te di la sant bu baax ci sa pëstéef ci wàllug sëriñ Tuubaa mi nu yaakaar di la xamal ne gis naa Mouhamad Ndiaye mu jox ma suukar sa muy fanweeri barigo ak tàndarma ñetti barigo ak ñaar fukki kilo ak trois millions lépp yegsi na maa ngi lay ñaanal yàlla ak sëriñ Tuubaa mi tax ngay def ngaraw lépp loo ragal te loo yóotu teg ca sa loxo yàkku la yaakaar maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di la ñaanal fu ma toll yàlla boole dimbali zaahiran wa baatinan wa salaam ubaydu rabbihi wa abdu sayxi lettre yooyu yëpp Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke moo ko bindoon sëriñ Bassirou Sarr ci diggante nag bu ñu nekkoon ñoom ñaar ci ànd nag ñu ànd ngir ku baax ki sëriñ Touba Cheikhul Khadim ba tax na itam kii di sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke bind na itam lu toll juróom benn fukki lettre kii di sëriñ Bassirou saar wala sax ëpp na ko waaye njaboot gi moom dajale nañ lu toll juróom benn fukki lettre def ko ci benn document ngir ku dem nag ñu wan la lettre yu sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke bind seen waajur woowu di sëriñ Bassirou saar ngir pëstéef gu seen waajur woowu amoon ci yoon wi diggante sëriñ Bassirou Sarr Sarr ak kii di sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbacke nekkoon nañu itam ñu jaxasoo ba tax na kii di sëriñ Basiiru Sarr itam faboon na doomam itam jébbal ko sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbacke ngir mu dëkkoo ko muy ku ñuy wax soxna maam jaara Sarr ba tax na soxna maam jaara Sarr moom bintu sëriñ Basiiru Sarr am nag njaboot ak sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Lahad Mbacke muy ku ñuy wax sëriñ Xaadim Mbacke Nuuru ak soxna jaaratullaahi Mbacke ñii ñëpp nag bintu lañ ak ibnu sëriñ Tuubaa Cheikh ak kii di sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Xaadir Mbacke diggante itam la woon bu yaatoo yaatu ba tax na kii di sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke gërëm na itam bu baax a baax kii di sëriñ Basirou Sarr sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadir moom bindoon na lettre nag kii di sëriñ Basirou Sarr ci addiye yu ko sëriñ Basirou Sarr jébbaloon ginnaaw bu nuyoo sëriñ Basirou Sarr di ko wax ne murit saadex bi ma ngi koy sant ci biir lettre ba te di ko gërëm di ko wax ne ku ñuy wax jiili Touré jottali na ma nag addiye yi nga ko jébbaloon ngir mu jox ma ko addiye yi nag mi ngi toll nag ci fukki junni nangu nañ nag lii di addiye ya maa ngi ñaan nag ci suñ borom nangu ko te fay la nag sa yéene maa ngi lay sant nag bu baax a baax ci sa yéene jërëjëf ñu teewlu lettre bi sëriñ Touba Cheikh Abdou Khadre Mbacke bindoon sëriñ Bassirou Sarr ci addiye yu ko sëriñ Bassirou Sarr jébbaloon salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu fa ilal muridi saadiqi sëriñ Bassirou Sarr maa ngi lay nuyu lu bari lool te di la sant te di la gërëm bu baax te di la xamal ne jiili Touré jottali na ma sa hadiya fukki junni nangu nanu ko bu baax maa ngi ñaan ci barkeb sëriñ bi yàlla fay la lu kawe sa njortu damay la ak yokk ak mujj ba li nga yéena lépp nga àggale maa ngi lay sant bu baax ci sa taxawaay jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh almustaktibu cheikh abdul xaadir al mbàkki yu loolu mooy lettre bi ko sëriñ tubaa cheikh abdou xaadir mbàkke bindoon digganteem ak sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke moom diggante bu yaatu la moom sëriñ basiiru ndax nekkoon na safoorub sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke nag daana ko dawalal léeg-léeg mboole koo gi itam bi sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke toogee xalifa général des mourides itam jébbal na sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke itam ci lu tolloo fukki oto ak ñett addiya boole koo gi itam ku sëriñ tubaa cheikh saaliwu mbàkke nawoon la ba tax na itam ñaare balaa sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke daa def dara daana ci waxtaan a kii di sëriñ basiiru saar ndax doyloo gum ko doyloo woon ak yaakaar jum amoon ci ngir barkeb maamam ja di cheikh ibrahima saar njaañ lool itam taxoon na nag sëriñ basiiru saar yaakaar jooju sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke amoon ci moom mu delloo waat ko itam kii di sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke lool itam tax na bi sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke toogee xalifa général des mourides ci atum 1990 ba 2007 kii di sëriñ basiiru saar itam yit na sëriñ tubaa seex ci atum 1990 ba 2004 ci lu tolloog téeméeri tonnes ak juróom-ñaar fukk ak ñett di 173 tonnes yu suukar loolu itam taxoon na kii di Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke itam bàyyi ko xel ci atum 2004 nag la Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke defoon déclaration di wax murid yi lii di addiyey suukar yi ak lii di xari tabaski yi ba sañoon daal ñu xoolaat ko bu baax a baax ndax metti na lool nag ci murid yi ndax murid bu nekkat yaa ngi jéem am pëstéef ngir yit nag lii di sëriñ bi am xar te loolu itam moom taxul nag mu yitteel ko lool ndax laajul nag yooyu addiya loola itam taxoon na nag kii di sëriñ Basiiru Saar nag soppi nag addiya suukar yooyu nag mu doon joxe di ko def nag lii di xaalis ngir it ko ki fi toogal ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul te booba nag kii di sëriñ Touba Seex wu Mbàkke la tombeeloon ci atum 2004 ginnaaw bu sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke defee déclaration boobu te 2005 ba kii di sëriñ Basiiru Saar lu tolloog ñaar fukki million ak juróom nag it kii di sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke ci atum 2006 lu tolloog fanweeri million la it kii di sëriñ Touba Saliou Mbacke ci atum 2007 lu tolloo 40 millions la it kii di Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ginnaaw 40 millions yooyu mu yitoon Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke ci atum 2007 dafa daanuwaat ay fan yu néew lañ ca teg mu yóbbuwaat lu tolloo fukki giléem ak ñaar fukki nag boole nag fukki millions addiya ngir yitaat ko ko baax ki Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke nakete nag addiya yooyu mooy addiya yi muy mujjee jébbal ku baax ki Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke kon nag wàllu addiya lu takkoo takku nag la ci jëmm ji def nag di Serigne Bassirou Bassirou Sarr jaamu ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba tax na kii di sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke xorondom la ko tudde woon ndax daana ko wax ne ñiy jëlee ak ñiy indi ñooy dajee ginnaaw sëriñ tubaa seex saaliwu mbàkke alaaji baara nag moo toog xalifa général des mourides tim noonu mu defoon itam ci waajuri alaaji baara yi moo xam ba ci kii di bi alaaji baara toogee xalifa général des mourides tim lépp lu amoon itim nag moom la ko jébbaloon ngir xaadim rasuul ba tax itim jox na ko addiya ci lu tollu juróom-ñeent fukki nag ak juróom-ñeent ak ay millions yu takkoo takku kero sax alaaji baaram mi ngi wax nag mbooloo moom indi woon addiyey sëriñ basiiru saar yooyu di leen xamal ne moom de bu toogul woon toogaayu xaadim rasuul du xam kan mooy sëriñ basiiru saar ngir ngirug pëstéefam ak jàmbaaram ci yoon wi sëriñ tuuba seex soye bu mbàkke ko amoon relation la ak kii di sëriñ ba siiru saar ba tax na itam kii di sëriñ basiiru saar tudde na ko doom cheikh murtada mbàkke ibnu xaadim rasuul ku jaxasoo woon nag kii di sëriñ basiiru saar la jaxasoo googu ñu jaxasoo woon tax na kii di Cheikh Mourtada Mbacke bindoon lettre nag kii di Serigne Bassirou Sarr di ko wax ne ñetti fan nag ci weeru korite gi nag dana seet si kii di Serigne Abdou Lakram Mbacke ci wàllu ngan nag jëmale ko nag ci ak màggal soo ma fa fekkee nag am naa yéene yi nag egg si nag foofu nga dëkk man Cheikh Mourtada Mbacke nag Ibnu Xaadim Rasul maa la bind lettre bi ñu teewlu ko bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu idaa Serigne Bassirou Sarr maa ngi lay nuyu lu bari di la digal ngeen feddaliku ci jaamu sunu borom amaa baxdu dikk kër Serigne fan ci kore gi incha allahu ngir def fa màggal su ma dikkee soo ma fa fekkee xañ na ma xag si sa kër maa ngi lay gërëm te la ñaanal asalaam tawfiq Mouhamadul Mourtada ginnaaw njabootu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim gu góor gi itam noonu la ko amee woon ak njaboot gu jigéen gi rawatina kii di soxna Maymunatu Mbàkke borom laylatul xadar ndax ginnaaw gu soxna may mbàkke doon màggal bis bii nag du guddig laylatul xadar waxtaanoon na ceeg jëmm ji nag di sëriñ Basiiru Saar jaamu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ba tax na sëriñ Basiiru Saar def na lu am solo nag ci guddi googu nag di ndono loolu mu fi bàyyeeloon njaboot gi njaboot gi ñu ngi koy wéyal ndax sa soo woon na ci soxna Maymunatu Mbàkke ba ca guug laylatul xadar gu ne mu jébbal ko ñaari junniy ginaar ngir bis boobu jullit ya cay teew mën a xéewlu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu mu séqoon ak jëmm jooju di soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba tax na itam njabootuk Seexul Xadiim gu jigéen gi ñu ci takkoo takku kii di sëriñ Basiiru Saar tudd na leen doom noonu itam ni la amee woon relation nag ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ndax kii di sëriñ Abdul Aziz Baara ibnu Cheikh Mamadou Baara Mbàkke itim foboon na doomam jébbal ku ko di ku ñuy wax soxna maam ami Mbàkke sëriñ Ibrahima Ñang bokkoon ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kii di sëriñ ba tax na itim moom meññ kii di sëriñ Soye bu Saar mi mu tudde sëriñ bu Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul kii di sëriñ Moustapha nekkoon taawu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabal muridiina kii na doomam di soxna Jee Fall ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim wala ñim jamono nag ci yoon yoonu murit wi amonte woon nag ñoom nag ak jaxasoogu yaatoo yaatu kon jërëjëf nag bàyyi soxna waalo saar ci loolu nag la sax di liggéey di yar di jàng ak di jàngale ba nim génnee àdduna ci atum 2009 laataa muy génn àdduna ci atum 2009 toog na fi nag toogaayu waajuram di seex sëriñ saar ci atum 1975 ba 2009 mu toll nag ci fanweeri at ak ñeent yu mu wuutu waajuramam wa nekk na fi itam xalifa maamam di seex ibrahima saar njaaña ci atum 2005 ba 2009 mu toll itam nag ci ñeenti ati suñu boroom yu mu wuutu maamam ja Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ kon moom sëriñ Basiiru Sarr nag am na taw féexi toog toogaayu waajuróom am na taw féexi toog itam xalifa ak maamam di Cheikh Ibrahima saar Njaañ xalifa waajuróom boobu di Cheikh Sëriñ Sarr ginnaaw ba mu fa bàyyi ko ci atum 2009 ku ñuy wax sëriñ Xalil Sarr mooy ko ko fa wuutu te xilaaf ak maamam di Cheikh Ibrahima Sarr bi mu fi bàyyi ko ku ñuy wax sëriñ Moustapha Sarr nag mooy ko boppam nag ginnaaw bu mu fi bàyyi ko ku ñuy wax sëriñ saar mooy ko ngi ñaan nag ci dara jëy waajuram yi ak maamam yi yàlla na ko suñ boroom fay foofu mu tëdd moom seex basiiru saar mu taxawal nag lu takkoo takku nag ci ay daara ndax kat yoon wii mu bokkat di yoonu murit tim loo rek la xam kiñ ko joxoon di cheikh mamadul basiir mbàkke ibnu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim tim ci liggéey dong nag la ko toqantal waajuram seex sëriñ saar itim laataa muy génn àdduna ci atum 1975 lettre bi ñu ko bindoon mi ngi doon sàkku itam ci biir lettre ba di ko wax ne itam na wéy nag di liggéey loola itam nag tax na nag mu taxawal ay daaray daara ñi man cee ràññee daara ju nekkoon ci dëkk bii nag di muux muuxu ràññee nañ ci daara ju nekkoon ci dëkk bu tudd taneeful ràññee nañ ci itam daara ju nekkoon ci dëkk bu tudd jaxaaw siin ci dëkk bu ñuy wax boofa ràññee nañ ci itam daara ju woon ci dëkk bii nag mu sanc di tuubaa xaddama tuubaa xaddama nag ñu ci diggante dëkk bii nag di Kaffrine ak Kaolack ci wetu dëkk bii nag di kër mbukki tuubaa xaddama googu sax moom moo ko sanc ci ndigalul sëriñ tuubaa cheikh abdoulahad mbàkke ci 1984 ginnaaw bu mu ko joxee ndigal ngir mu gor dëkk boobu sancaatoon na beneen dëkk itim wala beneen quartier itim ci dëkk bu sell bii di Touba ja suuf su yaatu ju ko sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke jébbaloon ci atu 1987 di Touba Lansar nekk itim ci penku Touba amoon na kër itim fii wuuf jumaay Touba ji jàkkaarloo kër sëriñ Touba kër Cheikh Abdoul Ahad ñu ko daa wooye kër sëriñ Bassirou Sarr waaye jamono jii ñuy waxe ak yéen na kër googu nag nekkul nag ci loxoy njabootu sëriñ Bassirou Sarr waaye kër ga ba nëga ni itim na kër sëriñ Bassirou Sarr lañ koy woowee nag yu mu amoon nag ci biir réew mi ci dëkk yii nag la newoon di yar di jàng ak di jàngale ak di tarbiya nag mbooloo mi ko yaakaar ngir jëmmi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom sëriñ basiiru saar moom sëriñ basiiru saar tim nag am na ay góor yàlla yu defar nag ba ñu xëy nag di defaree muy li ñu tuddee ay cheikh ñu mën cee ràññee cheikh bi ñu tuddee cheikh njaga mbay nekk tim nag ci dëkk bii nag di njaareem cheikh njaga mbay tim nag bokk nag ci jàmbaar yi toppoon cheikh basiiru saar di ko liggéeyal def ko sëriñ ak cheikh bii ñu tuddee cheikh moor faal ci dëkk bi itim nag di ndakaaru ay cheikh la yu sëtub cheikh Ibrahima Sarr Njaañ bi seexal ngir ñu ànd di liggéey ngir jëmmi ku ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci yar jàng ak jàngale nag ci la sax nag ba nim génnee àdduna ci atum 2009 cheikh Basiiru Sarr nag di jaamu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di doomu seex sëriñ Sarr moom cheikh Ibrahima saar Njaañ ak ku ñuy wax soxna say Saynabu Jóob mu ngi génn àdduna bisub alxemisa ñetti fan ci weer wi di weeru digg ci atum 1430 ci gàddaay gi alxemis ñetti fan ci weer wi di weeru digg ci atum 1430 ci gàddaay gàddaay gi dëppook jeudi 22 octobre l'an 2009 jeudi l'an 2009 ci suuf soosu ko Serigne Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke dëloon di Touba Lansar ci kër googu nag mu amaloon boppam ci quartier boobu nag di Touba Lansar ci bisub alxames boobu nag la génn nag lii di àdduna ñu wóolub sa ku baax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim di Serigne Moustapha Salihu Mbacke mu wóolu nag kii di Serigne Abdou Diop imam ak kii di Serigne Amdi Bousso di noddukat ak kii di Serigne As Jaxate ngir ñu taxawu sa tub sëriñ Basiiru Sarr jaamu ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim ginnaaw bu ko ñetti góor yàlla yooyu taxawoo ba noppi nag sëriñ Moustapha Saliou nag moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi ca wetu maamam ja ak waajuramam wa di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ak Cheikh Sëriñ Sarr moom sëriñ Basiiru Sarr nag ay xalifaam ñii la tëddee sëriñ Sang Sarr nag moo ko wuutu ci le 22 octobre 2009 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram wow di Cheikh Basiiru Sarr ak mbooleem nag ñum séqal Cheikh Basiiru Sarr moo góor ak jigéen ak mboolem taalibey cheikh basiru saar yi ak soppe yi suñ borom am na ko mën na ko yàlla na ko def ci daraja yi jasaaka cheikh basiru saar nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci li ñu tuddee sant guñ koy sant ci sant gum daa sant ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom nag la ak njabootam ànd ak ay taalibeem di ko wutal nag bis nag at mu jot nag ngir di ci fàttaliku seen a cheikh basiru saar sant gum daa sant ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñoom itam màggal gi nag amul bés fixe nag ci at ni saa bu ci njaboot gi waxtaanee ba juboo la ñuy jàpp bés boobu nag ngir di ci fàttaliku sa tub siyaay Ibrahima saar Njaañ ba di sëriñ Basiiru Sarr ñuy ñaan ci doomu soxna Seynabu Jóob ba ka waajuram faye woon Cheikh Basiiru Mbàkke ibnu ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim